waaw mais Géant dafa ñëw keroog fële ca laal ñu laafa bu bula tey njool daa tant bopp bi njool la laal de guleet may gis njool di sol ay dàllu bot man de c'est la première fois may gis njool di sol ay dàllu bot ah. ay dàllu fermé njool Géant maa ngi ko soog a gis ci àdduna pointure 79 eh Géant man ay carax laa ko doon gisee ndax taalu ko ngëru Paa Ada Cissé bi xam naa Paa Ada Cissé moo indil ay bata foofu ca Gambi commande e fuɗɗaat ɓaɗu noon a ndooraam njolne ba juufattu ko xate kor faap ma noona Géant bu Bargny ngi noonu Géant ak si campagne yi Géant ak si campagne bi lii de comme janvier ak février laa ilaha dafay gudd God is got